خلق الله كل شيء وعن سيدنا عمر رضي الله عنه ان مولانا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا له يا عمر اشهد من انا انا الذي خلق الله قبل كل شيء نوري فسجد لله سنة ما وأول شيء سجد لله ولا يومك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده أنبياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك خاتم لما ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن دار الآخرين ಎಲ್ಲರೇ ನಂಬಲು ಕಾರಣ ಬಿಂದು اليوم من نور مدرك منار ونور الأبصار نار وجهي واللوح من نور من الأنبياء يرجي والرسل البر للمنزلة والأمم البر الآتي بإقرار القوة وكذلك الجنة ان يتواصل به Let, let, let God say, جبل ضد أمره أسد جلد ولكن سيد جبل ضد أمره جلد له ولما أمر الله تعالى عز وجل أن يغلق الخلق استعداد الأمور أربعة أجزاء مجرد وخلق من الأول ممكن نجي جزء أكبر آية من القلم القلب ومن الثاني أبيان اللوح ومن يعلم موي الوجه يظلم من المنين ومن الثالث العرش هي كلمة بالله العرش ثم قسمه الجزء الرابع أربعة أجزاء وخلق من الأول الحولة العشر وبناء منه موقع الرحمن ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الملائكة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء وخلقه من الأول من السماوات ملكها الأسباب ومن الثاني الأرضين يجزوي ومن الثالث الجنة والنار الجنة أكثر ثم قسما بالأربعة أربعة أجزاء وقال لنا الأول نور الأخطار وكنت لا بغي ومن الثاني نور قلوبهم لا ثاني القول هو المعرفة ومن الثالث نور ابن عبد قبل والبدري وهو التوحيد ويتوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اراد الله خلق امين البشر يا لم ينزل ادم غير الله ويملي له غاية العز والرخاء وما يقدر مصمت الكوكر خلقه من دون بيده رغاب الدنيا ونفخ فيهما من روحه جروحا وبعد ذلك النور يوصف به وجل دولة ذكر في جسد وأمر الله وذرنا بهم يسجدون واسكنهم في الجنه وذكرهم الجنه وكما يا ايها يحبون العالم صفوفهم ينظرون الى ابن محمد هنا ولكن لذلك اي يفرق في الذي نتكلم عرب كل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عالم قال عالم يا ربي لذلك ينظرون إلى نبي محمد يريد يقول لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي استخرجه استخرجه من ظهرها يعني وهو كان جسد ذكر وهو خاطر الأنبياء موي مجبر به والمرسلين الدنيا الله عليه أجمعين وقال آدم يا رب yang lurah di Muktai Gani ya Nusmolor Nusmol Lero Mujibay Karam adalah itu dan melalui butuh pilihan dan menjadi berkala rumah oleh di dunia negara yang menjawab menjadi jawab oleh pilihan jawab negara yang melalui berkala rumah kembali I will know his Karama. Kullan, Sumo, Isaac, and Velen, Kana, Amuna, the Yukio, the Nalari, all Muhammadin, Jirjin, the Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, no issue, we never, the Shams, you are. Ah, Rapid nañ ko bu baax waaye dañuy sax suñu bopp ñu xam suñu liggéey boobu nan la ñu xam ne dafa mën a jëriñoo ci suñu bu nekk ci suñu biir ak suñu nit yi danañ teel a taxaw sax naa xayma si yéen am yëpp wa shukran wallahu maana jërëjëf sëriñ bi sëriñ bi tëddal na kanam kon nag Ibrahima continué leen ba ci kanam my one. Wow. Ibrahima Niass ñi wax ne imam agsi na ànd ak délégation bu mag di leen wax aussi ne Aliou Sall agsi na léegi ak Macky Sall pour fekkee guddi gi mu ne ñu tatagal అల్లేకే ముందు కషలుతుయా అల్లే సాత కా కాటాకే abunda muna gudanar da suna takawa allah ya baka yawan rabo allah ya baka lafiya allah ya sa ka koma gida lafiya مومنا منا لكم أنا مدينة مدينة الشيخ إبراهيم ولا يزمع مدينة لمنظر الله من قولي هنا جيبكم كاكا ولا بيها السلام عليكم Mm-hmm. تزلل في ضمائر الكون تخفى رؤى الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتفاهى بك العصور وتزن بك أياء بعدها أياء وفتى القلوب منك كريم من كريم آباؤه علماؤه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولد لي قط منذ خرجت من صلب ادم ولم تزل تتنازعني الامم كابرا عن كابر حتى خرجت من افضل حيين للعرب هاشم وزهرة وفي رواية خرجت من نباح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أمي وأبي أبي وأمي ولم يسلني من سفاح الجاهلين شيء ما ولدني نكاح أهل الإسلام ما ولدني إلا نكاح أهل الإسلام ولما أراد الله انتقال الأمر من جده عبد المطلب تزوج فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمرو بن مخزوم ووجده له أبا طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل النور إلى عبد الله وكان قد تزوج قبلها بزوجات قيل أول زوجة كان نعم. أول زوجة تزوجها خيلة بنت جندب ويقال صفية بنت جندب وهي أم ولدي الحارث ولما تزوج فاطمة بنت عمرو المخزومية ولدت له عبد الله انتقل النور إليه وكان أي عبد الله أحسن رجل في قريش خلقا وقربا وفي رواية كان أقرب أكمل بني أبي أبيه وأحسنهم وأعفهم وأحبهم إلى قريش وكان نور النبي بين وجهه وبجعل مهاجم كان يتمنى لأن لم يكن نور لقريش وكان أيضا لهم وشفعت به نساء قريش وكنا أن تذهل عقولهم هذا أهل السير لقي عبد الله في زمنه من النساء من العناء مثل ما لقي يوسف في زمنه من العناء للأمير العزيز وكان ذا عفة وكرم وسماحة ولما بلغ من عمر ثمانية عشر عاما خرج مع أبيه ليزوجه آمنة بنت وهب ومر على جملة من النساء فاختار كل واحدة منهم معلومتها عليه ويقبل بديرته وعقبته وروى أبو معين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج عبد المطلب بعد نحر الإبل بابنه عبد الله ليزوجه بر به على باهلة من طوالة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر الخرعبية وكان من أجمل النساء وأحقهن ورأت نورا من وجه وجه عبد الله فعرضت نفسها عليه فأبى وقال محمد حرام بل وما تجونه والعلم لا حل له فأستبينه يحمي الكريم عرضه ودينه فكيف بالأمر الذي لا تهينها وقالوا يا عباس رضي الله عنه أنه لما اقتنع عبد الله بأمنة رضي الله عنها عنهما الثوب من قتل امرأة من بني مخزوم وبني عبد منافع فتنة ولم يتزوجن أسفا على ما فاتهن من عبد الله وأنه لم تبقى امرأة من قريش إلا مرضت تلك الليلة دخل عبد الله إلا مرضت ليلة دخل عبد الله بامنه من توابه ويحكى أن عبد الله قال يوما لأمه أريد منك أن تخطبني امرأة ذات حسن وجمال وبهاء وكمال وحسب ونسب عالي قالت له حبا وكرامة يا ولدي ودافع أحياء قريش وبنات العرب عربي ولم تعجبها إلا آمنة بنت وهب فقربته فقدها له ثم أتى عبد ثم أتى عبد المطلب عمري أمنة وغرب عبد مناف ابن زهر ابن أخي وقيل إن وهبا المذكور أبوه لا عمه تزوج ابنة بن عبد الله وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وموضعا ووقع عليها من قوله فحملت بسيد الأنام والأخير الأولين والآخرين وانتقل ذلك النور إليها وسبب الذي دعا عبد المطلب لاختيار بني زهرة أنه خادما يمن مرة مع وفد من قريش قصد تهنئة الملك سيد ذي يزن قريش بتهنئة الملوك فقال له الملك بمن الرجال فقال عبد المطلب من بني هاشم قال أتأذن لي أن أنظر بعروضك قلت نعم ما لم يكن عورته ففتح إحدى مدخلي فنظر فيها ثم نظر للأخرى فقال لي أشهد أن في إحدى إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة وإنما ترد ذلك كله من الملك والنبوة بني زهرة قلت كيف ذلك؟ قال لا أدري ثم قال هل لك من شاعة أي زوجة من بني زهرة قلت أما اليوم فلا فقال إذا تزوجت وتزوجت منهم وتزوج عبد المطلب فهذا بنت وهيبه ابن عبد المناف أم حمزة وصفية قيل وام العباس أيضا وزوج ابنه عبد الله آمنة بنت وهب رجاء لما أخبره به الملك ثم قالت ليش فاز عبد الله على والده عبد المطلب لأنه نال النبوة وظهر والرعاية العباسيين جد جد جد جد جديد حمزة بن عبد المطلب كما احتار الشيخ إبراهيم نياز رضي الله تعالى عنه وعن سالم بن عبد الله قال لما أراد الله خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بطن أمه آمنة اختار شهر رجب القرن ليكون بداية بداية بلوغه إلى عالم الإسلام وكانت ذلك الجمعة أمر أمر رضوان خازن الجنان أن يفتح بالدرجة ونادى مناد بالسماوات والأرض ألا إن المأمون المأجور الذي منهم المجهاد يستقر هذه الليلة به الذي فيه يتم خلقه ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا وعن كعب الأحبار أنه رضي الله عنه أنه نودي تلك الليلة بالسماء والأرض وبقاعها أن النذور المأمونة الذي من رسول الله الله عليه وسلم يستقر الليلة بوقت آمنة قوى لها قوى لها فأصبحت يومئذ أصنام الدنيا منكوسة وكانت قريش في جد عظيم فاخضر الأرض وله الرزق من كل جانب وسميت تلك الصلاة التي قبل بها برسول الله صلى الله عليه وسلم سنة هو ما يشير ليلة المولد التي كانت للدين سرور بشرى هواته أن قد ولد المصطفى وحق الهنام

Aleluia! ẹ máa ṣẹṣẹ rẹ. نبي مسلمہ ادب انصاف قال السادة سادة النبي سلم عليه وكلي معه وهم على عبد الخليل نواصي أسأل صلى النبي المصطفى على آمين وكل من الصفات يتليم به كما تحت وكمال أسأل صلى النبي المصطفى على آمين وقت المخيف أولا يتليم به بداية زاد كل الخلق في قبل بفتح عناك إلى الرحمة والحق السلام صلى النبي صلى اذبح رجولي ولكن موته سرد جبريل اكرم هذا عن الشيخ السلام

أصاب صف النقيل سبعدني ولا تكذب بالإله قتلوا فكبر فقلوا وما أصاب صف النقيل سبعدني aadawoo nañu liñ ko dekkal ak Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu kalima bi nga xam ne moom la xalifa bi teew ji ñu jëm ci mbooloom yëpp gannaaw nuyu bu sell bu nuyu mbokk yi ndax daf leen a ooyee ay gan yi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee leen ay soppe yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne jugee nañ ci gox bu nekk àddina pour teew si fii noppi ci barab bii Mawlana Cheikh Ibrahim doon noppee waaye dundal guddi gi comme ni ko doon dundalee di jàng ay xasaayidam di ko firi di ak li nga xam ne nii mooy dox ci biir loolu muy wàllante ci xaar yi nga xam ne góor yàlla yi dañoo wax ne dund benn xaar ci yàlla mu ngi rek yow rek programme yi ñu ngi ci xaal boobu amul sikk ne doon mbaar mi ay góoram ki yoo xam ne ku seen xaar wàll nit nga demee loolu loolu doy la dund ak baatin ak tam mu ne san yi yi nga xam ne dañ leen a oo pour euh, guddi ki nga xam ne mooy gën ci kuñ bind muy leen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom moo ne ana ah, xiyaaru min xiyaari min xiyaar tànneef rek jigéen ci ci tànneef ñaari mbooloo ma su ñoo dajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu muy da ca gën la ko yàlla tànnal ci mbindeef yàlla yi tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy ramu mbindeef yi ndax lépp muy ubbi bunte xam kenn amul amul moom moom mooy ki nga li nga xam ne maanaam moom la laaj ngay laamee nuuruhum wala wujuudi wujuudan fa huwa aslu usuli wal ijaali leeram mooy cosaani nekk yëpp ci nekk mooy cosaani bàyyi mooy cosaani doom yi mooy ne mooy tànneef yàlla ci mbooleem ñu defam yi mu ne fii ci Medina Coona ki nga xam ne borom waxoon na ci xaalam yooyu nga xam ne waxoon na ne dañuy kulla waxtin حالة بعد حالة وحالة وجه المصطفى خير حالاتي وهناك أنا حال ليه حال وهناك ما يلقي حال يكاي وهي حال ما تكيني مجري مدير في سما حالي في حال ويلة أنا كنت بجد شيء صلى الله عليه وسلم أي صلاة الله ثم سلامه مدينة تبقى معقلة في الهدى يا الله لكن أقول لك شيء لم يكن من مثلنا di tasaar koo xam ne pour kóolute la ci dugg la nga am kóolute ndax sirru madinatu nabi bi nga xam ne yàlla def na ko fi ba ne salaalaha sirru madinatu nabi tabasaha tanti ilaa tahaju bi sirra xarameet yàlla def na ko fi ba si ahmed sukeeri ji ak bi nga xam ne ci la bàyyi sos zaawiya bi dafa dégg xaatu rabbaani mu koy wax daal di zaawiya bàyyi bi lan la tolloo mu tolloog maqaamul xaadima man daxalahu kaana aaminan bi hudaahu bind ko ci bindal loxoom yónnee ko bàyyi Abdallah te ci zaawiya bi ngeen ko doon sax ci buntu zaawiya bi kon loolu la fukkee euh, ci doon aati wax ne maqaama bii nga ne mooy bi la Cheikh Ibrahim sax képp ku fi rek da nga am kóolute lay may kóolute mooy jub ki nga xam ne moom moo nekk suñu na moom moo lay may korité euh, mu ne jottaliku ci tëbbam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy welli may yëpp mu ne ñu ngi tàmbali feetu ak euh, itteewoo juddu bi nga xam ne mooy gën a tedd ci mbindeef yàlla yi muy sayyidi wa habibi wa sayyidina jamii'an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sant yàlla bi nga xam ne moo ñu jagleel euh, feet bii nga xam ne ak bu jot ñu koy muy feet jagoo ñun ñu ngi sallallahu alayhi wa sallam ndax Cheikh Ibrahima moo nag tuddee sama robbaatul mahabbati mooy maanaam feet bi nga xam ne ñooy borom mbëggeel mbëggeel yi kan mbëggeel yi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo gën ci muy njëkk waaye moo gën ci muy mujj mooy aji mote mooy seen limaan ci jiitu leen ci am sax mooy seen limaan ci jiitu leen ci dayoo waaye mooy seen limaan sax ndax yàlla jëloon na ci ñoom ñoom ñëpp loolu ne ne buñ fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gëm danañ ko topp ñoom ñëpp ñu nangu yàlla loolu waaye yàlla feeñal na loolu bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañaanee nañ ko yàlla nekkal yonent yëpp ñoom ñëpp ñu sàppee juri ci gannaawam loolu rek pour lañ waxoon seen borom nekkul daje yéen a salaay salaam dañ ko dañ ko nangu waaye te gën na ci moom mooy seen iman ñoom ñëpp mu ne ñu ngi koy sant mu yàlla tabaraka wa taala bi nga nga xam ne dafay boole soppe yi ñu jugee ci sow jant ak benn jant loolu mooy jugee ci àddina lépp ndax baax mi dañ ko gis nationalité yëpp dañ ko gis ñu jugee ci continent yëpp bu ñëw feetal juddu googu muy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sax waxuma sax waaye ci asamaan ak suuf waaye damay wax ci nit ak jinne moo jinne yeeg dañuy ñëw di kuy si oote bi nga xam ne oote bi yàlla nangu la mbale yi mbale koy kuy si jamaadaat yi lépp dañuy kontaan ci benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ ne ñoom ñëpp wax nañu yonent sallallahu alayhi wa sallam ak téere jembaraay ca loxoom ñu sàppa ba ñëpp dégg ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne am na ay doj fii ci màggal yoo xam ne waxtu bu leen di romban dañ may nuyu ñooñu nag yëpp sëriñ bi mu ne mbindeef yooyu yëpp dañuy kontaan ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam di baamtu julli gi di baamtu nuyoo bi loolu li ñuy jàngal mooy ñun li ñu war a fanaanee suuti gi gannaaw déglu madareex yi ñu ko boole ko ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu guddi lépp loolu la ñuy jàngal moo tax mu dem ba ci biir mu koy salaat julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne yonentam bi ko yàlla yónni dafa ñëw pour génnee nit ñi génnee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer génnee leen ci lëndëm nit yàlla yóbbu leen ci leer gëm yàlla daf leen génnee ci lëndëm paxek yóbbu leen ci yaatuwaayek àddina te dina génnee ci lëndëm maandoxa ci maanu mu ne ñu ngi feet loolu guddi googu ngir yàlla jubal ñu ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne dimbale na way néew ci doole ñi leeral na way xiif yi muñ na xew-xew jamono ndax ku nekk xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam naka la mu ñëwee dundam lëpp sa muñ doy na pour nit war a jàng muñ nga mën cee àgg pour àggale si risaala bi la yàlla yónni nga xam ne bu demee ba loraange ñu ngi ci bàyyi bu taalib bi nga xam ne moom rek boo ko doon défendre taxaw na di ko wax ne ko di ko yàq ngir mbokkam yi waaye yéen ci sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko buñ tegoon jant bi sama ndeyjoor bi mooy la ñu teg weer bi sama càmmoñ bi ma bàyyi li yàlla yónni ma ma ko bàyyi mooy yàlla feeñal na mu dàqa mu ne ko yow nga xam ne sa saxaaba yi bëgg nañ la gëm ñi bëgg nañ noon yi dem nañ ba toroxlul la ndax ñi ci bëri ci ñoom nangu ñu yonent bi sallallahu alayhi sallam lu may gannaaw boo xamee ne ñii jaar ak ñii nañ ñii gis nañ ci mbaaxam ak ci teraangaam ak ci yaatoom ak ci laaya biram ak ci tabeem sax loolu moo tax ay noonam mujj nekk ay xaritam mu ne yonent boobu nga xam ne sallallahu alayhi wa mag ñi wér nañ ko waaye mag ñi ci wér nañ ko yonent boobu nga xam ne tuddee nañ ko saadatul amin te boobu gën ko muy tuddee ñi ko ko tuddee mooy ay noonam mooy waa Quraysh te boobu kay dara du sax amul mbootu ñoom ñoo ko tuddee amin ñoom ñoo nekk du fenn ndax euh, Hiraqla ba mu laajee Abu Sufyaan fukki laaj yooyu yëpp ba mu ko laajee ndax dana fen ndax fen loolu la sëñ bi di euh, fetliyaat mu nekkul ku óor ba nga xam ne waa Màkka yi dañ koy lox di ko lox di ko lox ba mu waral loolu pour génn dem gàddaay te fekk mu nañ doon dégg seen alal yi teew def na seen naari danaa def sama lal bi boo ci lawee garanti naa la jànna boo mu cay déggaane yi yi ñu ko déggoon nga delloo ko amul ku gën a baax yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam amul ku gën a óor yonent boobu nga xam ne sëriñ mu ne way gëm yi nangul nañ ko téeméer yi nangu nañ ne moom jikkoom lu tedd la ñoom ñëpp nangu nañ loolu nangu nañ ne cosaanam cosaan bu bu sell la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu yow suñu soppee yow aji am suñu yow nga xam ne yaay gën ci ñu nekk yàlla yi yow ki nga ne yaay Muhammad mooy ki nga ne ñun asamaan sant nañ ko ñun suuf sant ko ba nga xam ne ba Quraysh bu tee di xas te mënu koo xas dañ doon wax ne monsieur Mouhamed dafay naan bu ci ñëw xale naa yéen suuf ne sallallahu alayhi wa sallam nga xool li ma yàlla wutoo ci ñoom ba ñu buggee saaga sax ba ñu buggee xas mënuñ ma xas ndax mu monsieur moom la ñuy wax monsieur moom mooy ko yàlla mooy ku gërëm mooy ku tagg moo tax sëñ bi ne gannaaw néew tedd maa ngi tatagal boole ñi nga xam ne nii ñu ngi feetal ci gënam Cheikh Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa yaatu ba àgg ci tatagal na fépp kuy feet ci ak foo mën nekk ci àddina bi rek sëriñ baa ngi lay nokkeel waaye rawatina ñi nga xam ne ñu ngi koy feetu ànd ak euh, moom fii nii gannaaw sant yàlla sant yàlla sant yàlla lu bëri bëri ba mu doy yàlla mi nga xam ne moo ñuy mottali diine ndax moo wax yonent bi wa sallam tey naa la mottali sa diine matal sama xéwal ci yow gërëm lislaam muy sa diine yonent yàlla boobu nga xam ne moo may xéwal googu ñu war koo sant moom lay gërëm di ñaan yàlla mi nga xam ne ba tey mu ñu gërëmal lislaam muy suñu ay di la ñuy faram-fàccee ba léegi ñu ngi sant yàlla nga xam ne moo ñu yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci diine dëgg mu nekk ay woote jëm ci dëgg di dëggal way topp ñi di tëkku way eh, mooy ndax di leen moytuloo safara oote jëm ci yàlla am nañ digal ndax oote jëm ci yàlla eh, bëri na waaye am nañ digal ci lay njëriñam di mat dëgg-dëgg yonent boobu nga xam ne leer la sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne ku ku sang la bu tedd ba Abu Taalib tàggeewoon wa abrahu yustasqa al-ghamam bi wajhihi simaarul yataama asbatun lil aramili yanuudu bihi al-bulaaku min aali haashimin wa mu'iduhum bi ni'matin wa fawaadili yonent boobu xam ne asamaan bëgg na ne ci moom ndax mooy xabaari asamaan yonent yi jiitoon ñëpp bëgg nañ seen nit di sallallahu alayhi wa dana ñëw yonent boobu nga xam ne suuf euh, euh, lëtëxee na ci moom asamaan leeree na ci moom jikko yi tedd yi yëpp ci moom mu ne yéen ñi ngi feetal ci dugg nga xam ne moo ñu may ñun ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam may ñu teewal yi nga xam ne moo gën ci mbindeef yi may ñu tim teewal ñu jàpp ci sunnaam mi nga xam ne sunna boobu nga xam ne moo ñuy fegal mbooleem fitna yi mbooleem balaaya yi te loolu mu ngi ñu xadis yi nga xam ne Seydina Ali radiyallahu anhu ba mu laajee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax fitna dana am mu ne ko fitna dana am bu amee ñu def mu ne ko mooy ngeen jàpp ci alxuraan mu ne nga xam ne cat bii mu ngi ci loxo yàlla cat bii mu ngi ci seen loxo téere bi nga xam ne bu màggat mu ngi jàpp jàng bu tewi mu ngi jàpp jàng téere ba nga xam ne borom xam-xam yi du ci suuf mukk du jamono sori sori rek wax bu nekk borom xam-xam yi di am dégg du bees alquran téere bi nga xam ne jinne yi sax bu ko déggee man bu may ñoo xam ne dinaa seqee naa ko xaaru xaaral def ci lëb si daanu naa bi yonent bi nga xam ne moo ñu may loolu mu ne teewal boobu moom la ñuy sant ne ko ñun yonent sallallahu alayhi wa sallam fekkoon dañ ñoo laaj ne ndax bëgg nañ la dañuy wax ne bëgg nañ la kon mu nga إبراهيم وقرأ لمولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وإن تسألوني عن حبيبي ومذهبي أجيب برسول الله حين أجيب وين مراجع لم يوم كان لا صوت يوم mbokkam yooyu moo ñu dugloo ci tey moo ñu dugloo ci gaal yi moo ñu bàyyi ñu guddi daje fii kon mën nañu wax loolu mu ne moo tax mu ne moo tax nañ seen seetantal hadis yi nga xam ne mooy hadis yi nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne kenn ci yéen gëm lu may maa ko gënal baayam ak doomam ak ñëpp Seydina Omar ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma gënal lépp ba mu des sama bakkan bi yonent bi ne ko kenn ci yéen gëm ko jural boppam mooy nga topp ko lépp gënal la a na mun na yàlla wax ni mu tudd ko mun na baax def ci mbir mi mu baax mu ne ko koo xam ne ngeen ko yàlla topp leen na man yàlla bëgg leen bëggee googu mooy waral dëgg lépp bëggee mooy waral toppi googu nga xam ne mooy waral yàlla bu jaar yi nga xam ne loolu bu amee am na ca àdduna ak ca àllaaxira dañ bi ñu ne bëggee ñu ne sallallahu alayhi wa sallam du ay baat rek ñuy wax xamal xamal nañu ne nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg màggaay gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màgg ci boromam waaye mu wax ba tey li nga xam ne euh, mu ko ko tey jox waaye mu wax ne li ñuy def maanaam gàmm ba bi teew ba léegi di dale ñoom dalal gan dundale ci yàlla ziarante yi yàlla jàng dugg gi jàng hadis jàng tafsir Quran yëngu ci yi nga xam ne bu moom sax mu làmboo fi yëpp waaye nee na benn rek dama ne liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam texe la te génn si yooyu ak maanaam la nga ciy gàmm mën naa jeex ci xol yi ak liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën naa may gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gént gis ko ci boole ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xarit ma wax aa lii bi mu naa bi waxat naa si inna cheytaana laa yekk beneen mu ne kon gis ngeen si dëgg nga gis ndax seytaane bu mel la sama mel la te dégg aw saako yi melo yi mën na laa may nga toog di denc ko mu ne boo ci andewu denc ko sax te yàlla bu ñu yàlla xañ loolu mu ne nga doy ci xañ loolu ci yow bànneex ko ci say cër yi nga xam ne day bànneex ci yoon suy sallallahu alayhi wa sallam ndax bàyyi ko xam ne mu ne yëngukaay yi bët ak nopp ñaar yëpp ay yëngukaay la bu fekkee tax naa faat te yàlla bu ñu faat gis ko ci ay x a dégg ay w e l o o ci ci say nopp ndax ni ñu nekkee gisukaay yéegukaay noonu la noppee nopp nekkee yéegukaay ba nga xam ne nopp sax mën naa ko dégg gis di jaay boo xam dañ ko suñu daa si ko xam ay ni ak yaan mu ne ci sopp wax bu dégg tagg yu yonent i sallallahu alayhi wa sallam dafay dem ba mel ni mu ngi koy gis fekkee suma zakara xiyaaroon na maa ngi fàttaliku ci jidda Cheikh Ahmad Amin moo sax nañu ko émission ci benn gàmm bu jàng xasida bi ñu jàngoon léegi dafa xam ne daa ndaxoon naa ne yéen na ko mu ne am ku ne ko bi ngay jàng xasida bi maa ngi jàkkaar ak yéen loolu moom la waxi naa yi sëriñ bi nekk fii ci suba bi di Juda. mu ne yéen soppe yonent bi ah tur bu neex la ko waaye taalibe yi loolu mooy jàpp na ne ku nekk rek war ngaa góorgóorlu ba am na soppe yonent bi mu ne Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu tegal nañu ci yoon ci bis bis gàmmu yi yoon yoo xam ne. daf ko doon def pour dundalee bés yi nga xam ne. muy bési gàmmu. muy yëpp pour bàq bi nga xam ne. bu leen mu ci euh, oto bi nga xam mu ci yooyal saay. bu ci ne gàmmu xam ne ci sàkku yi ñu mun a si ñoom ñaari bi. mais sa sant yàlla. bi nga xam ne xam nañ ne moom moom mooy muy asamaan ak yàlla moom nga xam ne kenn la jur juruñ ko amul jabar amul bokkaale soxlawut gannaaw bu koy dimbale soxlawut ministre bu koy jàppale gën naa kawe ko gis loolu yàlla moom nga xam ne dara mel ni moom mu ne ba tey wallahu ahad yàlla kenn la loolu daf ñuy fàttali li bàyyi waxoon mu ne tooki ñetti aaya ak ne coono góor gi teew gi yëpp dañ ci aayal ak